Lauréat du prix Ragné de la révélation politique, M. Abdoulaye Ndiaye Ngalgo. Bon, ce que je sais, voilà, donc ça fait un an presque que j'ai commencé à avec moi. Mais voilà, je connais un homme qui est très ambitieux, et, euh, qui a beaucoup de projets pour la ville de Tuaouane, mais qui est très social et qui a des relations extraordinaires. Franchement, la collaboration, là, je n'ai jamais vu un personnage comme tel. À la hauteur de l'homme, qui est M. Abdoulaye Galbou, qui depuis 2016 s'évertue à être auprès des populations tivaouanoises pour contribuer de façon efficace à la prise en charge correcte des préoccupations de l'ensemble des populations de Tuawa. Sur le plan de l'éducation, nous appelons Khalé Tuawa dix sur les 6 universités du Sénégal fu ci nekk dëkk bu ci nekk luwee fa ñaari appartement pour les étudiants du de de de Tivaouane. sànq maa ngi seen ci biir lycée ci ay taal baa ñu ma joxe deux cent tables. alors que lycée bi doon souffrir. moom lii tey la ko njëkk def. parce que xam nañ ko bu baax xam nañ ko bu baax a baax. nit nak bu la defalee lii yaakaar naa ni am na lu mu bëgg ci avenir xale yi ëllëg. Mhm. parce que xale yi ku leen mettre à l'aise ba ñu mën a toog jàng tranquillement wax dëgg yàlla def nga li nga waroon def tey damay di def témoignage ci nit ku am solo ci Tiwaawan bu Seydi malik. Malick rawatina département de Tiwaawan mu créé mouvement bu ñuy wax ànd defar macha allah depuis ba mu ko créé ba tey nag lépp lu naqari woon population Tiwaawan ci acte yëpp Ablaye Ndiaye Ngalgu mi ngi ciy xëy mi ngi ciy gont Ablaye mu mi ngi ci sport mi ngi ci daara yi mi ci hôpitaux yi mi ci prison yi mi ci néew di doole yi Ablaye yaa xam li nga bëgg yal na la yàlla dénk meeru Tivaouane. ci Tivaouane ndax ses actions de développement yi nga xamante ni mu koy def ci wàllu jigéen ñi dafa yëkkati 100 millions boole ko formé jigéen ñi ndax nit ñi dañ daan tàmm dañ leen di formé bàyyi la ñuy dem mais moom dafa formé financer. pour la première fois dans l'histoire médicale du Sénégal on réfère des malades des hôpitaux régionaux vers un hôpital départemental et ça se passe à Tuaouane. Et ceci grâce au président Abdoulaye Diaye qui a permis aussi aux femmes en état euh, d'accouchement de pouvoir vraiment le faire dans des conditions qui puissent garantir la vie et de la femme et de l'enfant. Et aujourd'hui, nous avons à Tuawan une chute vertigineuse de la mortalité infantile juvénile qui passe tout simplement de 12 à 4. Tout ça donc grâce aux efforts consentis par le président Abdoulaye Diagalgo pour mettre les blouses blanches de Tuawan dans les meilleures conditions de prendre en charge les malades de la zone. Ablaye ya xam li nga bëgg yalla na la yalla dénk merci beaucoup mangi ngi gannaaw ba sante yalla julli julli sallallahu alayhi wasallam vraiment recevoir trophée bi des prix iraniens, euh, prix de la révolution politique donc je am vraiment jot ko euh, di sant vraiment euh, jury bi nga xamni tay ñoo porte une choix ci si euh di remercier aussi vraiment sama ay sama ay famille c'est-à-dire euh, dama koy déjee sama sama famille c'est-à-dire mes parents d'abord mon mari mes enfants ma femme déjee aussi samay collaborateurs yi nga xamni ñom ñoom la ma yàlla politique donc nek ci le mouvement en devant donc je pense que prix bo xamni la jot nañ ko avec euh, beaucoup de plaisir te xam naa dinañu gën a motiver lépp lu ñu doon def ben nañ ko dinañ ko gëna renforcer donc je pense que ma ngi sante aussi vraiment Sénégal yépp di ko aussi son excellence monsieur le président Macky Sall donc euh, moom mi nga xam ne tey ci politique mu lay jàppale.